l'expérience fera face. à mbokk yi mu ngi noonu Assane Ndiaye la ñu ciy àndal ak waa Bawol production jëm arène nationale le 3 juillet drapeau Pape Abdou Fall le grand promoteur grand combat bi war a dox ci diggante kéwél bu Bawol war a jàkkaarloo ak le professeur de Lansar Tidiane Faye mbokk yi ci bés boobu Cheikh Super Jamono dina fa jàkkaarloo ak Boy Sey numéro 2 Teg Choc dina fa jàkkaarloo ak Caatu Montagne ak yeneen i sept combat espoir yu war a am ci bés boobu waaye nag maa ngi leen di yëgal ni bésu le 3 juillet face à face am ci bu Thiès Thiès ak Youssou Ndour bu Balla Gaye entrée bi ñaata la Assane ni dama koy yombal rek 2000 laa koy def 3000 ak 5000 francs ci Assane Ndiaye ak waa Bawol production ak ñoo mën bés. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di nuyu biti réew mbokk yi di am mbégte ak contentement bu mag jàkkaarloo waat ak yéen mbokk yi di bége bu baax a baax Assane Ndiaye bool production ci bis bii nga xamante ni moom la ñu indil bésu trois 3 juillet boole ñaari xale yoo xamante ni ay ndaanan lañu tey nag ñëw nañu dëkk ci dëkk bu mandi làmb ñëw ñu ci dëkk boo xamante ni dëkk bu am solo la ci wàllu làmb ndax dëkk bi bu ñu la ko tuddalee saar sa xel dem ci fëgg la dëkk bi bu ñu la ko tuddalee Lansar sa xel ci dem ci Tidiane Faye tey moom lañ fi fekki un très grand champion koo xamante ni bis bu ne bëri na ko ci làmb maa ngi fàttaliku keroog bésam ba ak Jaguar làmb dootu ko fàtte ak lu làmb dootu ko fàtte tey Assane Ndiaye Baol production moom la ñu indil di ci sargal ko mag nag ki nga xamante ni moom mooy Pape Abdou Fall drapeau Pape Abdou Fall la diggante Tidiane Faye ak ki nga xamante ni moom mooy Kéwul Tidiane fay balaa ñuy wax dara ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi lay seetaan. waaw salaamaaleykum gannaaw ba sant yàlla julli si maam sant ñaari waajur waa Tivaouane lamsaar yëpp waa Cité naa la jàmm gën Sicap Mbao poste Thiaroye Thiaroye géej ñëpp ñi nga xam ñooy bëgg Tidiane ak écurie lamsaar yëpp ak écurie Thiaroye di encouragé sama rakk nag Coly ci combat bi mu jógee nii neexul kenn waaye nag jàmm moom sabul rek la yàlla moom mooy dogal waaw di nuyu waa axlu làmb yëpp nag di nuyu sama waa écurie di nuyu sama papa Max Mbargane euh, di nuy sama père Moussa Kotse di nuyu sama président Cheikh Niang di nuy chef de quartier bi ak chef de quartier yëpp nekk Tivaouane lamsaar yëpp di nuyu wax dëgg yàlla maire Tivaouane dem ci euh, lamsaar yëpp daal. Tidiane li ëpp ci axlu làmb wala mën naa wax amateur yëpp dañuy bëgg Tidiane ndax façon bi muy bëree façon bi muy bàkkoo est-ce que Tidiane gëj bi muy gëj ci làmb loolu arrangé na amateur yi amateur ñoo koy réclamer. waa xam nga mbër mu ne bëri la bëgg waaye nag jaam pexem yàlla ak dogalam mbër muy takk ngeem mu ne dañ day bëgg am takku saan chaque dimanche waaye xam nga loolu mënut a nekk ndax mbër dañoo bëri bëre jël ko waaw. dañoo toogoon lu yàgg gis ñu Tidiane lu jiitu ngay bëre ki nga xamante ne moom mooy Alioune Seye Junior. waaw loolu moom suñu borom la rek du si ñun parce que mbër mu ne comme li ma la wax rek bëre la bëgg boo toogee bëre woo wax dëgg yàlla sa sago te chaque jour nga nekk ci entraînement. léegi nga jëm ci bisu le 3 juillet. Mhm. xale bi ngay dajal kéwél xam nga ne ci digganteem ak ñàkk jariñu la jóge nga ci defet te kéwél moom li wér nee na du toog mukk ci ñaari defet loolu moom concerné wu ma man li ma concerné li sama kanam rek may ñaan yàlla bés yàlla may ñu ndam rek loolu ñu ñaan. Hmm. naka nga waajalee bés bi. waaw tey damaa gis Lansar ñëpp a génn tey. waaw dañu ànd ak suñu rak ak suñu papa. waa Lamsaar yëpp ci waawoon Lamsaar yëpp yëpp yëpp ci te ñëpp. wax dëgg yàlla ñu ñu ànd ak ñun te lii yàgg na du tey terrain bi ngeen ñu fekk fii muy terrain Ndiassé amul champion bu fi génnul Max Max Mbargane langal na fi champion bu ne kon sant yàlla bu ñu fi soqee koo kii nii fii amul champion bu fi génnul ba lamsaar bi ngay dégg yëpp amul mbër mu fi jaaru kon sant yàlla xam nga xale bi ngay bëreel ci mën a bëre moom kéwal ak fonk lamb lool fonk bés waaw man nag xam nga loolu du mooy concerné man loolu moom concerné wax dëgg yàlla man li ma yor laa xam moom laay andi ca lamb ji waaw mais est-ce que dem ci làmb concentré wu ci li nga yor lépp te bañ a concentré wu ci ki ngay dajale est-ce que loolu wóor na xam nga loolu loolu boo koy wax day mel ni da ngay wax ak koo xam te ne day sooga a dugg ci làmb waaye ku def dix ans plus de dix ans ci làmb daanaka adversaire bu ñëw rek war na xam ni mu koy aborder. lan lañ diggante Tidiane Faye ak Kéwel ci xeex bi wala ci bëri bi. non lépp rek parce que euh, guerre moom boo koy dem doo doo wax sa arme waajal lépp lépp lépp lépp lépp waaw du ñaan yàlla bu bés baa rek mu nekk suñu bés yàlla may ñu ñu ngi lay ziar bu baax. Euh, ñu gis ne boo xewlee. ñu gis ne mbëru yi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw xale yëpp luñ jàppoon dañ koy bàyyi mooy question bi mhm. waaye dañoo gis ne nga jël xale boobu. mu ngi teg deux défaites. si deux défaites nga jël ko ak benn niil nga jël ko loolu jël ko est-ce que du risque si yow te nga si victoire. premier défaite premier kii bi nga wax nan la. xale yi xam ne ñoo nekk Lamsaar bëgg la loo xewle ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen i te sa diggante ak xale yi nga xam ne ñoo nekk si Lamsaar nga leen di conseillé ah, ah, et puis loo xewle ñoom sa diggante ak ñoom daal lan la. waaw xale bu la miinee bu la miinee loo ko ko da nga ko woon fas kanam kon du so day sofantal sa noonu la demee nag kon ñii samay rakk lañ te ku ma ci ku ma ci xewle maanaam ku ci xewle du ma sofantal sa bés damay takk di contact ak ñoom di buñ may leen nii la ak nii la comme comme ni sama papa Mass Ba doon ñu defal noonu lañ leen defal waaw benn question bi. mais nga jël nga jël xale boo xam ne dafa teg la deux défaites nga jël ak benn match nul est-ce que du waaw non xam nga da ngay seet défaite yi nga yëm kii rek waaye am na boo yoo xam tey jii nii ñu ngi ma ko doon wax ma jël Keweul damay gënal ma jël leen parce que booy seet Keweul def na fi loo xam làmb loo xam te ne daanaka kenn du ko fàtte fi parce que ay champion rek la fi daan waaw. ñu ngi lay waa làmb moom ñett la rek. bërëg say morom bërëg say mag bërëg say rakk loolu moo fi nekk ci làmb. kon da damaa bëri samay moroom ba preuve bu bëri samay mag def ci preuve kon fa mënut a ñàkk mu bëri samay samay samay te boo ñun daal ñu ngi waaj parce que xam nga kuy dem geer nag wax dëgg yàlla doo wax sa arme te nag wax dëgg yàlla maanaam comme dañoo seex saaxamee ñi ngi sa ñi ngi waaj ñi ngi ñaan yàlla saaxami ko war na ko ak jàmm wax dëgg yàlla loolu loolu ñu mën a wax ci lamb moom doo xam nga loolu man tuddee ma ko sama bopp bi may ñëw yaa ko wax léegi yaa ne lañ ma tuddee waaw kon preuve bi ma def ba def loolu noonu loolu moom bu ko bu ko bu ko moom bu ko gisul moom bis boobu mun na mun na am mbetteel sax loolu noonu muy wax. drapeau Pape Abdou Fall ngay bëre. waa waaw dañ koy ñaanal rek dañ koy ñaanal bu baax a baax parce que topp na ànd ak ànd ay rakam. am naa ay rakam bi làmb diingoo tey ñëpp xaaju promoteur yëpp daanaka am am loo xam te ne neexu leen ba tax ñu bàyyi làmb gisul sponsor sponsor yëpp daw moom lañ fi gis mu taxaw ànd ak ay rakam kon sant nañ bu baax bañ ko bañ bañ dee bëre bëre combat ci drapeau ci wàllu mobilisation bi wax ak say supporters wax ak supporteru Kéwél yi naka ngeen fas yéene ñëwee stade bëri ci fair play que le meilleur ku ku ci nekk ñibbi sa kër. waaw comme comme comme ni nii open press bi mel rek damay ñaan la ñun ñëpp ñu mobiliser wu génn ñun ñëpp ñu mobiliser wu génn ticket yi incha allah dinañ ko récupérer andi ko fii nii. képp ku bëgg ticket boo ñëwee fii incha allah di nga ko am incha allah rabbi waaw ñu jàppale suñu mbër ñu def comme nañ doon def. ñu fàttale ko suñ diggante ak Pamor ñu dogante suñ papa fàttale ko suñ diggante ak Paul Maurice yooyu yëpp ni gars yi doon génnee maas ay zaa wax yëpp. mais li tax say adversaire yëpp doon la daw mooy sa diggante ak Jaguar nee naa la bés la boo xamante ne lamb dootu ko fàtte de bés boobu waaw lamb boobu dafa am fu ma jóge moo tax ba pare ba pare sama baak matkaa dafa dafa ma forcé combat bi ne ko danga koy jël par force parce que boobu noonu écrit bi ñëpp dugg nañ ci gala man mel man maa fa nekkoon te bëggul loolu moom moom dafa bëgg mbëri yëpp di bëri léegi nag comme gars yi jël jël nañ avance man jëluma avance mu ne da ngay jël avance par la force loolu war a ma dugg si kalaaf boobu ak mer waaye ñi ma ñi ma bëril ba pare delluwaat di bëri ñooñu da ngay xam parce que boo bëree ay lees de ay saako joor ah ay medun xule ñooñu nga bëri ñoom ba pare wëlbati ko waat di bëri ñoom ay ay ay ay wulli bëri ñooñu noonu day mel ni danga nga am da ngay si kii da nga wàcc jugee dix di ñëwaat si un quoi waaw. no boo ñëwee si équipe bi sax ñu booy jox la ko booy ñu jox naa ko booy yëpp waaw. ah. <laughs> waaw comme loolu tax sama yàkkamti nii parce que tey jii nii lii ñu nii neexuñu parce que da ngay gis nii kay ñu nuyu suñu mbokk policiers yi tey jii nii nga xam ne tey autorisé wuñu ko woon yàlla xam na ko ñoom ñu may dégg. waaye biñ ne Tidiane mooy def open press rek dañ ne carrément nañ ko bàyyi mu def open press parce que wanewul loo xam te ne moom mooy loolu noonu kon may ñaan suma rakk suma mbokku mbër yi ñu làmb parce que tey ñu ñoo ko moom parce que olof Ndiaye day wax ne nga mujjee poso mu réer loolu gàcce doy na ko parce que suñu papa daa am lu fi tege suñuy mag suñu baay ñëw teg teg ko fi suñuy maam ñëw teg ko fi kon ñun ñu mujjee poso mu réer waaye ñaan rek di di ñuy sama sama mbokku euh, takku der takku der yi bu baax parce que tey bu leen neexoon ñu ne duñu am du am parce que ku ne xam nañ tey jii nii si kanam dina am loo xam day yëngu léegi te duñu neex ñun Sénégal lañ am nañ ñaan yàlla lépp dem benn ñu comme li maam Dabax doon wax ñu tàppe xol yi. balaa ngay woote a fogale séeréer mooy sim naanum waaw ñi eh, xooyaa fogale séeréer rek sim naanum jokkaanu na njal laya nun koy combat ne le andoona yee il n'est pas jegan mois 4 mois boo tee day yokk 3 jours 4 jours mais xeɗa nuun ndam taam a paax no combat ne paax région de Fatick département de Foundiougne arrondissement Djilor fop min na fop mais xeɗa nuun ndam taam laya koy fogo jon waar fo euh, sereer joof joor joof keek fop mais xeɗa nuun du ngar ndam taam no combat seek ah, ah, ah. waaw woote moom comme li may wax rek léegi laa wax loolu laa wax expliqué may woote waa waat ñëpp rek comme nii ñu def génne seen bonne presse ñu génn parce que Assane Ndiaye waru ñëw gën a gore nag waaw incha allah ñu may bëgg gaa yëpp génn rek. waaw ñu ñu dem fa rek incha allah ñaan yàlla may ñu ndam ndax loolu la am daal jaam loolu la loolu la am waaw di gërëm ñëpp rek incha allah. L'expérience fera face. à la jeunesse. mbokk yi mi ngi noonu Assane Ndiaye la ñu ciy àndal ak waa Bawol production jëm arène national le 3 juillet drapeau Pape Abdou Fall le grand promoteur grand combat bi war a dox ci diggante Kéwél bu Bawol war a jàkkaarloo ak le professeur de Lansar Tidiane Faye mbokk yi ci bés boobu Cheikh Super Jamono dina fa jàkkaarloo ak Boy Sey numéro 2 Tech Choc dina fa jàkkaarloo ak Caatu Montagne ak yeneen i sept combats espoir yu war a am ci bés boobu waaye nag maa ngi leen di yëgal ni bésu le 3 juillet face à Thiès ak Youssou Ndour bu bi ñaata la Assane ni dama koy yombal rek 2000 laa koy def 3000 ak 5000 francs ciy Assane Ndiaye ak waa Bawol production ak ñoo mën bés